abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot su nekk ay xibaar yu wér te ci réew mi ak ay fan yu néew moo des ngir ñu màggal Aïd el Kabir ñu gën koo xam ci tabaski di fête bi gën a màgg ci jullit ñi foo dem ci réew mi ñu ngi koy waajal bu baax a baax ba tax rédaction bu Seneinfo jokk amal ci reportage bu am solo déglu ci imaam médecin commerçant tailleur ak ñeneen ñoo xam ne àdduna jëmale ci bis bi. imaam Moustapha Diouf lañu ñu njëkk dëkk suñu mikro ngir mu ñëwal ñu ci solos euh, tabaski ak ban xar la ñu war a tànn rendi ko ngir jaamoo ko yàlla. lan mooy tabaski tabaski comme ni ko boroom xam-xam yépp firé ak jaamu yàlla la goo xam ne ay jaamu mi nga xam ne ñoom la bind muy doomu aadama yi dañ si jéem a jege seen boroom. si rendil ko ab gàtt moo tax leneen lu dul loolu ci bés bi daf koy taaral di ko gunge loolu li koy firndee nag mooy yonent bi sallallahu alayhi sallam moo wax ne doomu aadama bi defalul yàlla ci bésu tabaski lu gën a màgg mu tuural ko deret moo tax jullit bi nga xam ne yàlla mën loo na ko mu am loo xam ne moom la mën a jege boroomam ci jaamu yàlla googu muy rendi gàtt na ko def léegi tabaski kooku nag war na ci képp comme te mu kallaf la mooy ku majeur muy ku denc soxna ak ku dencul soxna jigéen bu nekk ci buumu sëy walla jigéen boo xamante ne duggagul ci néegu sëy léegi gàtt boobu nag dafay nekk lenn ci ñett yi bu njëkk mooy al ibil muy gëléem bi ci topp mooy li nga xamante mooy albaqar muy nag ba ne mooy alxanam muy juri kër yi bu ñu ne juri kër yi nag moom mooy xar walla bëy biñ ci gën a taamu nag moom mooy li nga ne mooy xar kon dafay jaadu xar moomu it ñu xam yan critère moom la làmboo yonent bi sallallahu alayhi comme ni mu ñëw ci xadiis dañu wax ne ba nga xamante ne moom la rendi ci am tabaskeem dafa rendi woon kapsh muy am kuy nee na kuy moo xamante ne ñaar la woon yu ni am la xay ni ñaar yu weextal ci beneen xadis mu ne da doon dox ci li nga xamante ne mooy lu weex maanaam tànkay dañoo weex yaram way dañoo weex waaye li nga xamante ne mooy gémmiñ ga ak ci bët yi am ay tomb yu ñuul yente ba mu ko rendee mu ne gàtt bii de benn bi ngir man la waaye beneen bi mooy képp koo xam ne sama xeet yàlla def na tabaski ji te ci moom ba amu ko bii moom mooy am tabaskeem gàtt boobu nag bokk na ca yangante moom la dajaloon ci ay condition muy ay charte comme niñ ko waxee léegi xar lay nekk muy premier choix xar moomu nag néew ba néew war na am juróom benn weer léeg-léeg foofu ñaari mbir ak ñaari taxaw seetlu moo ci nekk bu njëkk mooy ubbil nañu ak yombal ci ki nga xam ne peut-être mënul jënd yenn xari mu jënd xar moo xamante ne buy oyof lay nekk ndaxte poosam lu jënd xarum juróom benn weer at mu nga ca waaye beneen biit nit ki du xeebal mbir boo xam ne moom lay jaamoo yàlla kon koo xam ne yàlla wërsëgal nag mu am ci alal lu doy lu mu jënd ci am xar lu mu rëy rëy rëy doyul parce que dafay jaamu yàlla tabaraka wa taala fa nga xam ne moom mooy cosaanu tabaski mu bàyyi ko si Seydina Ibrahim nga xam ne yàlla tabaraka wa taala moo ko sante woon ngir mu rendi doomam muy Ismail ba mu nangulee yàlla lépp ba dese lu dul tër doom ji rendi ko yàlla gis jaamam boobu ni mu ko nangulee waaye jaam boobu ngi mu paree ngir jiital bëgg-bëggu yàlla ci bëgg-bëggu ba kenam ba mu jaral ko mu pare ngir rendi doomam doomam jot di Ismaayil yàlla ba mu koy jotu mooy ba mu koy wuutal ba tax yàlla yaayam euh, pàppam di Ibrahim rendiw ko yàlla neen wa fadaynaahu bi zibhin azim dañ koo jotee mooy dañ koo remplacer ci am xar moo xamante ne xar mu màgg màgg ne liggéey jëf ji jëf ju rëy la waaye màgg ne liggéey xar ma it nekk loon xar mu ndaw ñaareel bi xar mi war na nekk loo xamante ne gis-gis ba dafa leer nañ maanaam xar mi du nekk am silmaxa moo tax dafay jaar ñi ngante ñoom ñooy jënd bu ñuy jënd am tabaski ñuy xool bu baax ndax xar mi mu ngay gis ndax xar mi nekkul xar moom te ne benn côté kese lay xool lay xoole walla dafay téen di xool yooyu yëpp dafay am ci li mooy xar yi beneen bi mooy war nekk xar moom te ne gémmiñ ga amul li mooy xet bëgguñu xar moo xamante ne gémmiñ gi dafay xasaw lool ba boo ko tiimee rek xetu gémmiñ gi di dégager xar moom it bokkul ci xar yi nga xam te ne nañ ko ci li nga mooy am tabaski beneen bii du nekk xar moo xamante ni béjjin ya dafa damm bay nàcc li ñuy nangu ci béjjin bu damm mooy béjjin boo xamante ne damm ga ginnaaw ga wér na ba deret génnatu ca kon su boobaa bu dammee su boobaa dara amu ci beneen bi ci topp mooy xar mi warul nekk xar moo xam ne li ëpp ci geen bi dafa dagg maanaam sulus bi muy un li ngante mooy deux tiers dañ na bu doon dañ koy xaaj ñetti xaaj daanaka ñaari xaaj yi ci geen ba dagg na xar moomu it taamu ko ci li ngante ne mooy tabaski beneen bi ngante moo ci topp mooy xar moo xamante du dégg dafa tëx beneen bi ngante moo ci mujje mooy Yonent saa sallam na bokkul ci xar yi ngante dees na ko tabaskee mooy xar moo xamante ne laa mu xalahu xar mu yooyu lool ba daanaka amul gerees xar mi boo ko gisee da ngay gis ne yax ya yépp mu ngi génn loof ndaw ba nga xamante ne boo ko poussé sax xar mën na fa jaare faatu liñ naan rey mu dee rey mu dee xar moomu it bokkul ci xar yi nga xamante ne moom dañ koy tabaskee kon juróom benn yi ñu wax ni mooy yi nga xamante ne moom moo war a daje cim xar ñu li ngante ne mooy tabaskeeku gannaaw kàdduy imam Moustapha Diouf yu am solo yooyu docteur Isma Ndiaye di vétérinaire joxe na ay tegtal yu am solo yoo xam ne képp ku jóg di dem ca daral ba war nga caa bàyyi xel. booy jën tànn xar mi fexeel xool xar moo xamante ne euh, maanaam bakkan yi exemple laay joxe bakkan yi xelli wuñu ndax bu xelle ba jéggi dawee euh, euh, bàyyi ko fa moo gën a wóor moo lay wan ne lu si gën a bari day am problème respiratoire bu dee xar boo xam ne bët yi dañuy jooy jooy bu ëpp ndax soo gisee mooy loolu ne jooy bu ëpp. ndax euh, xar bakkanam dina faral di xelu tuuti bëtam dinay faral di jooy di jooy tuuti waaye nag bu ëppee moo tax ñuy wax bu ëppee nga ne xar mii bëtam yi ni ñuy jooyee daal euh, dalul sama xel nga daal ko fay bàyyi ba tey ci kaw yaramu xar bi nga daal di xool ndax amul maanaam euh, karaw gi di rus ba nga xamante ne der bi xonq bi day daal di feeñ voilà yooyu aussi mën na nekk ay problème parasite externe wala sax parasite interne mën a indi lu mel noonu aussi muy lépp loo xam ne xeetu sànn la wala xeetu ngóotóot yu nekk seen kaw seen kaw yaram euh, ba tey nga xool ci kaw der ba est-ce que amul lu demee ne ay puttantaan wala lu demee ne ay xeetu taab wala lu demee ne li ñu naan ay nodule maanaam ay euh, bul waaw loolu yëpp daal boo ko làmbee gis ko si mu xaw see bari loolu aussi nga daal di moytandiku ndax am na feebar yoo xamante ne euh, noonu lay màndarga woo bu ñu gisee aussi ne xar mi biir bi dafa daal di gonflé rëy mën na nekk problème indigestion moom la wolof naan fiiw biir bi gonflé reesulul euh, maanaam fër su ko defee kooku mën nga dem ba sa kër ga sax euh, mu indi la jafe-jafe tëdd dootul mën a nooyi euh, jaar fa daal di daanu wala boog mu jaar fa sax biiram di daw bu loolu weesoo biir bu daw boobu may waxit aussi boo seetloo ne xar mii kat biir baa ngay daw moom it bàyyi ko fa yooyu daal ak moo xam aussi tànk yi nga gis ne xar maa ngi soox wala diggante tànk yi am na loo xamante ne maanaam am na benn xeetu feebar boo xam ne bu nekkee ci seen tànk yi dangay gis euh, euh, diggante tànk yi day xaw a mel ni day xasoo xunn day xasoo xunn ñuy soox seen tànk bi dem ba nga xam ne sax day mel ni wey bi day xaw a mel ni luy summeeku kon loolu yëpp daal ki jënd xar dafa war a bàyyi xel ci loolu fan moo ci des mais situation bi ni mu demee mooy wax dëgg yàlla ñoo ngi fii ci wàccaal yi defar di xaar euh, clients yi ñi daan ñëw ñi ngi ñëw am na ñoo xam te ni wax dëgg yàlla mënoogu ñëw ñëw ndax dëkk bi ah, li ma ci wax mooy mu ne nii bariwul bariwul xar bariwul xaalis waaw xar moom bariwul gaa mais xaalis it amul te it it bu xaas amee moom day gën a wér ndax bu xaas amee moom pour nga am man naa yomb mais bu xar amul xaas amut day métti te day métti ci boroom kër yi te wax dëgg yàlla it tiim say xar di ko jaay war a tax nga ñaan xar manqué di ma gën a bañ parce que su xar manqué yow boo yow yow néeg yow boo jàppee lijjanti sa bopp te say mbokk lijjantikul amul sens kon dañuy ñaan xar am xar yomb jàpp na ni ñun xar éleveurs yi xar yu jafe mooy suñu arrangement mais loolu arrangé wuñu xar yu yomb nga jaay say xar dem na ci leneen daa ëpp sens nga téye fi xar yi jëm moom bu kenn xamul di fere jëmale bu kenn xamul ndax ba léegi fere yi day taxaw te it aussi yàgg fii fii amul sens ci ñun ñoo ci dem mais wax dëgg yàlla daral bi moom ça va alhamdulilah mais ministre yi bu nee xar yaa ngi ñëw xam nga ministre yi moom bu nee xar yaa ngi ñëw si xar ñëw na waaye nag ndax nañ nañ ñëwee ni la ñëwee te aussi xar yi nag bu ñu bëggee mu yombe ñoom it nañu yombala nit ni xar yi di duggee di yombalee nit ñi tam sarte yi waaye bu yëf yi méttee ci ñoom wax dëgg yàlla ak fere yi ni muy mel ci ñoom it ñun dunduñu lool waaye xam nañ ñoom la ñuy dund métti na ginnaaw ñun ñuy dëkk ci dëkk bi di baas fii suñuy kër ne fii li ñuy fere ñoom ñu jóge ci àll bi li ñuy fere wax dëgg yàlla te lépp nag ci client yi dañ ko bëgg si faat la nga xonte la nga fere lépp ci client bi nga bëgg sa kon loolu day métti ci client te loolu état bi moo ci war a jàpp pour mu yomb ci client aussi ah, bi de moom mu ngi sedd xar yi nag am na nag mais instant moom affaire moom prix bi amagut waaw prix bi amagut lu a sonal nag ba xam waa mairie ñuy wax daal fii waruñu taxaw fii waruñu jaayee fii te lii ay fan lu gàtt rek la yaakaar naa ñoom war nañoo muñal rek ay 10 jours moom war nañ ko muñ te aussi boo gisee ñu indi fee xar yi pour population bi moo tax ñu indi xar su fekkee na ñoom tamit ñi xatal si euh, tey doo leen taxaw fii taxaw leen fële dem leen fële wàcce leen fële loolu tamit il faut gars yi seetal ko si baax ñu seetal ko loolu rek mooy suñu jafe-jafe instant bi nii nii nii. client ñu ngi ñëw. waaw ñu ngi ñëw ndànk-ndànk ñu ngi ñëw ndànk-ndànk waaw mu ngi ñëw ndànk-ndànk de waaye na bu gënoon yokk moom moo gën waaw fii de ñu ngi jaayee fii ba ba soixante-dix ba quatre-vingt-dix ba cent waaw lu xar toll rek fu mu toll rek xar fu mu mën toll am na ay cent vingt cent trente ba cent soixante yemul fenn daal. waaw foofu toll lay xar toll rek. Hmm. loolu wàññeeku bi ma wax dëgg yàlla dafa wàññeeku xam naa ni programme bu ñu doon baax rek affaire xaw ma xaw ma seen kii affaire xaw ma affaire waaw loolu moo xaw a ragal gars yi tuuti loolu moo xaw a ragal gars tuuti mais moom ren moom xar bëriwuñ fii moom fii doon fees dal la xar mais ren moom xar yi bëriwuñ ku ne tabaski ne xar waxit euh, lay ànd ca togg ga lu si mel ni soble pompiteer ak ñoom seen bu dee jaaykat yi nag ñu ngi dalal euh, xel yi ne dina doy njëg yu xaw a cher lañu ca nemmeeku jamono ji dañu toll jamono boo xam bu ñëwee nit ñi dem tuuti tension ci marché bi surtout ren nga xam ni oignon pratiquement depuis importation ba léegi dafa bariwul ci marché bi du Sénégal rek àdduna bi yëpp la wër euh, état bi acteurs yi ñu ngi ci ay solution pour mën a satisfaire marché bi pendant la tabaski euh, mais loolu antuwul parce que dañu am na benn quota importation bu ñu waxoon day ñëw mais loolu ba léegi gisuñu ko mais li ma ci yaakaar ak gis ko ci àll bi li fi nekk ci oignon doy na pour dëkk bi xëy na loolu dañ ko defoon rek pour que prix yi mën a bañ a chair mais yaakaar naa ne marché bi ni ma ko gisee nii su may wax dëgg rek soble moom dina xaw a cher tuuti même bu fekkee dina am fii ak tabaski moom dina xaw a cher tuuti ci bourse sénégalais yi quoi. waaw prix moom a am habitude di ko wax parce que xam nga soble dafa bëri façon. waaw jigéen ñi ku nekk dangay ngay bi nga bëgg. mais en tout cas en tout cas daal ça varie actuellement ci marché bi ça vari entre dix mille francs ba quinze cinq cent actuellement ci marché bi sac bi waaw. Euh, pomme de terre ça vari entre dix mille et douze mille ci marché bi waaw mais en tout cas ñun li ñu bëgg daal mooy satisfaire marché bi te yaakaar naa li fi nekk ci produit ak pomme de terre ak soble doy na quoi. te milieu yi et puis ni ñuy appliquer prix yi détails yi ci suivant les. les quartiers yi nga xam moom fa lañ koy yóbbu loolu mooy problème mu Sénégal actuellement parce que dañuy wax soble dafa cher lii lay jaar mais boo demee au niveau du gros marge bi ñuy teg au niveau du détail dafa xaw a bari trop par rapport ci yenn côté yi quoi loolu nag ministère moo ko war a organiser wala direction du commerce mais lu jafe la loo xam ñu ngi ciy liggéey depuis des années am na ay prix conseil yoo xam ñu ngi koy génne. mais respecté ko strictement moom moo xaw a jafe ci nit ñi du ñu sévir du ñu sévir des fois pour mën a teg nit ki ay daan yoo xam ni dootu ko def wala yooyu quoi loolu mooy suñu problème ici au Sénégal. bon comme ni ma koy waxee toujours rek tabaski du du xar mi kese parce que man je vois état bi yenn saa yi xar mi rek la ñuy privilégié gaa ñi ngi liggéey ci soble ba pomme de terre bi mais cër bi ñu ko war a jox. jox ko oignon jox ko pomme de terre jox ko le tailleur jox ko le jaaykatu yére bi tissu bi. il faut que ñooñu ñëpp environnement boobu yëpp moom mooy constituer benn manne financière ci tabaski bi ñoo ñëpp il faut ñu jox leen ci nag cër bi nga xam moom lañ ci am ko ah kilo soble 700 lañ koy jaayee nii pompiteer 500 am na 500 am na 600. sant yàlla rek ci laay suturaloo nit moom soo xeebul sa worsek doo sàcc doo doo doo doo doo doo def dara. jamonoy tabaski lekkum yàpp dafay bëri ñàkk set. togg gu bon wala sax lekk ca lu ëpp mën a indi ak loraange ba tax docteur Konaté di artu jëmale ci nit ñi rawatina ñi amee yenn jàngoro yi. xar bi euh, suñ ko reyee yàpp bi soo leen ko récupérer vraiment pour euh, il faut que nit ñi ñu jël seen temps raxas ko ba mu set ah raxas ko ba mu set bu fekkee tamit euh, dañ ko war a togg togg yi nag togg ko ak ndox. Hmm? moom moo gën mais loolu nit ñi dañu am seen ay lu ñuy wax seen ay aada donc am na partie yoo xam ne dañuy lakk ak yu demee noonu lakk bi c'est bien togg ko ak ndox moom moo gën euh, togg ko nag ak diwlin euh, du ma wax ne baaxul mais moom moo yées ci ci ci togg yi donc nit ñi loolu bu fekkee am nañu possibilité moytu ko Je pense que ce serait une euh, très bonne euh, euh, chose pour seen santé ñi nga xam ne dañu amee seen wér-gu-yaram si ñooñ laay wax donc parce que risque bi ce sont les gastro-entérites c'est-à-dire ñu jël loo xam ne ñu consommer loo xam ne setul et puis biir bu daw fekk leen si ay biir yu metti ay wëccu am na ñoo xam ne Euh, dañuy def seen gastro-entérite ba ils vont se retrouver même à l'hôpital donc euh, def fête bu retrouver à l'hôpital je pense que loolu moom dara jaru ko ah beneen fànn bi fi may insister ah moom mooy c'est chez nos patients suñu nit ñi nga xam ne wéruñu ah te ci ñooñu ñi may gën a insister moom mooy diabétique yi Euh, hypertension tendu yi mooy ñi nga xam ne dañu am problème mu tension ak euh, ñi nga xam ne dañu am problème mu cholestérol euh, ñi mujjee moom mooy ñi nga xam ne dañu amee goutte donc ñooñu vraiment bu fekkee mën nañu moytu yàpp bu xonq bi ce serait vraiment une très bonne chose en mais suñu demee ba nga xam ne que ne mënuñu ko muñ ba mënuñu ko muñ ñu ñam si mais ñu boole si leneen par exemple euh, am na ñoo xam ne dañuy def jën ah c'est pas interdit am na ñoo xam ne dañuy def euh, yàpp bu weex bi yàpp ginaar c'est pas interdit te day neex ba dee eh, am na ñoo xam ne euh, dañuy toggalu ay togg yoo xam ne yu woyof ah def ay crudité def légumes yu bëree ah naan ndox bu baax et puis ñam si fois bi ak yu demee noonu ah. suñ ko defee rek en ce moment là donc ñooñu ñëpp mooy ñi ma cité ñëpp les diabétiques les hypertendus euh, les hypercholestéroliques euh, ñooñu ñëpp donc euh, ils sont plus ou moins pro, pro protégés euh, ñi nga xam ne feebaruñu mun nañu ñam tuuti ci boisson bi sans trop exagérer ah Euh, parce que jour boobu c'est-à-dire day bari ay aliments yu riche donc il faut pas exagérer donc avec euh, la boisson gazeuse ou bien la boisson trop sucrée Euh, ñi nga xam ne nag ñoom dañu feebar ñoom euh, je je préconise je les conseille ñu jël tout simplement de l'eau ñu naan ci ndox bi bu baax ah et puis euh, bu boobaa ñëpp dañuy am jàmm dañuy def seen fête bu baax te puis il y pas de problème. tabaski nekk na jamono joo xam ne daanaka liggéey yëpp ay dox rawatina ñiy yëngu ci wàllum njënd ak njaay. ñenn ca ñoom fekk nañu leen ci seen bërëbu liggéeyukaay. préparation tabaski bi xanaa ñun ñoo ngi jaay rek nekk ci kawam Dóor waar si clients yi bari nañ ñu ngi ñëw ndànk-ndànk si dëgg am na différence parce que par rapport ak tabaski fi jot a jàll loolu dox yaa ma gën a xam daal mais actuellement ñu ngi ñëw ndànk-ndànk daal. Hmm. si dëgg la parce que xale góor yi ñu doon def weekend passé temps yi passé ak yooyu. parce que feeñ na ci benn côté. ins bi sant ñu ngi jaay daal vraiment sant yàlla. ci même tabaski ren la yaay bi moo gën a génn purxa bi paquet yi ñu ngi koy jaayee 15000 francs basé riche. mais sant yàlla jubli si yoonante bi rek par rapport événement yu jàll événement yu jàll ñoo dàq comme yi mais xam naa manifestation amoon moo tax marché bi doxul marché bi sant nañu yàlla bu baax. mais loo gis am na lu gën a dox mais lu daaw moo moo dàq ren fépp mais ren moom mooy loolu pas nu mu laan doxee doxi wut ko dëkk bi métti na dëgër na nit ñi amuñu xaalis mais lépp sant suñu borom rek comme fekkee nañ ko fekkee nañ ko ren nañ ñaan yàlla fekkee ko déwén rek mais lépp loolu la. mais marché bi moom ambiance moom doxul moom xumbul non doxul de fii ñu ngi fee jaay ay mbessin riis ak lafiya jasner wàllu brodé brodé simple ak wax simple wax état get yooyu lañ fay jaay. Safia daal moom bokk na lu gën a dox moom ren ci événement waaw. waaw bi moom xam nga période tabaski lañ wax donc euh, marché bi bu xumbee waru a jaaxal donc instant bi moom ça va client yaa ngi def seen i dem laaj ci ay prix aussi xam nga bu découvrir produit boo xamante ne si mosuñu ko gis c'est normal aussi donc ñu suñu benn exposition bu yem rek génnee suñu produit. wane ni ñu wane quoi ci marché bi. am na xaw na am toute différence na par rapport ak manifestation yeeg yooyu mais instant bi comme que commencé waat na di ñeme ñu ngi ñëw nank nànk mhm. waaw dina gën a dox parce xam nga tabaski dañ koy waaj waaj tabaski ak yeneen événement yi c'est différent donc euh, loolu moo tax euh, lu muy gën a jege si rek clients yi dañuy gën a ñëw di jënd si def seen achat ba pare ak euh, mois bi fi mu toll nii tamit dañuy lijjanti xaalis daal di ñëw jënd si. waaye client yi moom daa nañ gën a bari quoi waaye instant sant yàlla rek jaay mi ngi dox quoi waaye gaa daa gën a doxee nii quoi waaw waaye sant waaye client yi ngi ñëw daang daang waaw mi ngi tane bu baax a baax waaw am naa yaakaar quoi ndax client yi moom dinañ ñëw quoi xam naa ne dañuy xaar xaaj rek waaye dinañ ñëw incha allah quoi affaire bi waaw si la bokk nag na si tuuti rek suyee na si nag suyee na si bu baax a baax ndax bi heure bi daana fekk client yi ñëw génn bu baax baax a baax waaw métti na rek waaye liggéeyu góor la rek liggéeyu góor la rek na trop waaye liggéeyu góor la rek xam nga Sénégal mooy loolu quoi liggéey amul nii mën a am quoi mooy. waaw ambiance tabaski de moom moom macha allah ñu ngi koy gérer mais instant bi client yi moom ñëwaguñu bu baax parce que événement bi esseegul noonu noonu. waaw dinañ ñëw incha allah parce que client yi dañoo bëgg lu baax te ñun yu baax yi ñun ñoo ko yor cuuraay yeeg parfum yeeg xet Touba Darou Salaam mi nga ko mën a amee waaw ñun dañoo bëgg lu baax te dañoo xam bagage ba fi mu nekk ñu koy dem di paas lu sori nag pour dem jëli ko indil leen ko ah instant bi ba bi passé moom neexoon na moom mais gëm naa ne bii di ñëw moo koy daal waaw man loolu laa gëm man waaw maa ngi dundee yaakaar loolu am nañ fi ay cuuraay ay parfum chambre am nañ ay gommage am nañ ay gel de douche am nañ ay mousse en maki kii démaquillant bi am nañ ko maquillage moom boo ci bëgg am nañ ko waa noonu la demee nag. di leen nuyu ñëpp di nuyu client bépp buy jëndee fii Saloum Jidda euh, di leen wax ne période bi ñu ngi waajal tabaski bi bu baax client yi ñu ngi ñëw aussi bu baax. Mhm. Euh, mais client ñi aj yi la ñuy gën a gis. que client yi ñëw pour jënd bagage ay jàllaabi yi. période bi euh, zam-zam bi mu ngi dox ak tàndarma bi ak semisu alaaji yi aussi. day mhm. gën a dox sijaada yi aussi. dañ ciy jaay bu baax parce que période tabaski bi ci la ñuy gën a jaay par exemple chemise alaaji xale yi. Mhm. Euh, période korité lay gën dox waa mhm. parce que xam nga tabaski bi ñu si bëri dañuy ñawlu korité bi ñu bëri jàllaabe la ñuy soxla parce que moom mooy gën a ak yooyu mhm, noonu. waaw mais nag ñu ngi gis ay clients yoo xam ne dañuy ñëw pour jënd jàllaabe pour tabaski bi mais ñi dem màkka moom ñoom la ñuy gën a gis. col yi mooy gën dox colu asli yi. mbaxana bone yi semisu alaaji ji zam-zam ak tàndarma yooyu moom client yaa ngi ñëw bu mm, baax a baax ak jàllaabe yi comme comme ni nga soññee rek waaye yi jigéen yi mu ngi dox bu baax ah. waaw am na ñu koy ñëw di si waaw ñu leen wax rek ñu ñëw Saalum Jidda parce que fii boo fi ñëwee lépp li nga soxla am na fi lépp loo soxla pour jëndee ko maaka mun nga koo amee fii ndax bagage yu ñuy jaay yëpp am na am nañ ko yi ñuy soxla pour maaka am nañ bagage yu jugee Jidda am na yu jugee Euh, Màkka am nañ bagage yoo xam ne ay bagage marocain la bagage boo soxla daal yoo xam ne soxla nga ko pour dem Màkka ñëw joxe sëri am na saalum jidda suñu mbokku tailleur yi itam di liggéey liggéey bu am solo ci xew-xew bi seeti nañu leen waaw bu ñu toll ci ñaw yi de ñaw yi moom des na moom waaye daal am ci am nañ ci yaakaar moom nañu jeex waaw ay fan yu néew moom moo ci des moom am nañu yaakaar moom nañu jeex soobee yàlla xam nga booy xool fit na bu ñu doon def euh, jamono yee paase moo xaw a suuxal yëf mi am na client yoo xamante ne ñëwuñu waaye ñaw yi moom am nañu sax am presque moom daan ne ñëw gën a bëri loolu moom moo xaw a suufeel yëf mi lool ba am na client yoo xamante ne mu ñëw leen a gis sax ci yëf mi noonu la fa demee waaw soobee yàlla moom ku ci am fi ñaw duñ ko jël de soobee yàlla nañ ko jël de incha allahu rabbi hmm. xam nga tabaski moom ñëppay ñëwlu xale yeeg jigéen yëppay ñëwlu korite mën ngaa wax se xale yi ñoo ci gën a am doole loolu moo tax waaye tabaski moom daa nekk feet poo xamante ne ñëpp ñoo ciy ñëwlu moo tax daal lu ci ñëw rek ku nekk sa client rek fay ñawul ko mu dem soo ko defee mu jot ci quoi loolu moo gën jël lu yem nag ñaw ko mu jeex moo gën ngay tardal ñëw jàmbur nekkul loo xamante ne arrangement la lam nit moom soo jëlee ñëw jàmbur war nga ko mën a ñëw jox ko ko loolu mooy yoon xam ne ci ñoo xamante ne ci client yi mag dañuy xaw a yéex munoo comprendre dañ lay forcer ba nga jël ko soo ko ñëwul muy toog di naan di ngaa tardel sama ñaw bi nii ak nii ak nii moo tax ñu mel noonu itam client yi nañ ci bàyyi xel événement tabaski su ñëwatee ñuy teel a indi seen ñaw soo ko defee ñu teel cee jot ñu am benn jafe-jafe. waaw ñun def si marché bi nañ nekk xaw nañ fi yàgg nag waaye nag euh, ñu ngi si jaay bi damay jaay tusi dañuy ñëw en même temps. waaw mais nag euh, ñaw bi daal tabaski baa ngi nii boobu ba léegi nag neexagul noonu waaw neexagul noonu ndaxte clients yi gisuñu leen dëkk bi nag moom moo metti waaw xaalis am gisuñu clients yi daal pour le moment nànk-nànk daal la ñuy gis clients yi waaw. par rapport ak daaw noo gisee. noo daaw nag moom moo gën daaw daaw moo gën a neex ren nag pour le moment xëy na nag si kanam dina dina kii daal si suñu njott ñun daal ñu ngi espérer si kanam xëy na nit ñi dinañ ñëw yow da ngay jaay tissu wante tam da ngay ñëw. damay jaay tissu damay ñëw mais du man may ñaw en personne damay ut tailleur di ko ñaw waaw mais nag côté boobu am na difficulté ndaxte tailleur yi moment bii moom ñoom ñooy suñu buur moom. waaw parce que ñaw bi dañuy ñëw dañ su leen neexee ñu ñëw ba mu neex leen ñu arrêté ñaw bi dem uutiwaat feneen waaw cher na aussi fu mu nekk ni soo amul 7000 doo am tailleur wala 8000 francs par journée. waaw parce que journée ngeen leen soo amul 7000 wala 8000 duñ la ñawal waaw instant bi daal metti na trop trop trop te côté boobu tamit duñ leen blâmer ndaxte ñoom tamit aussi dañuy ut lu ñu am waaw loolu daal mooy difficulté bi waaw. na loolu lu ñuy solution la ko. Ah, solution bi xanaa ah xëy na tamit ni dëkk bi demee la rek solution bi xanaa ñoom tamit ñoom ñu jàppale ñu rek xam ne ñun tamit seen yaay lañu seen seen mag lañu. waaw liggéey bi ñun ñoo ko bokk. waaw nañ ko oyofal ba mu oyof rek ñu mën a nekk ensemble waa à part nag marché bi neex na am na jàmm waaw ñu ngi dëkk en communauté nekk jàmm waaw wàllum tissu yi mu ngi tissu yi mu ngi. waaw mi ngi dox ndànk-ndànk nànk ndànk instant bii ndànk-ndànk rek moo fi de waa mais ñu ngi sant yàlla nag bu baax mais daaw moom moo moo tane woon mais ren xëy na tamit dina neex si kanam. waaw dit mën na ñu ñëw dernier waaw waaw parce que sénégalais loolu la xam toujours ñun dernier moment la ñuy jóg te dernier moment la ñuy am waaw loolu la daal niñ bëggoon tabaski bi xay na ak jafe-jafe yi am fan yi moo xaw a laal ñu bari sax moo tax lu bëri sax aw am xaw am ay gàllankoor mais ñu ngi sant yàlla quand même te am nañ njortu ne ñaw yëpp dina pare euh, liggéey bi yëpp dina yeewu incha allah am nañ ci yaakaar bu baax daal. temps moom arrêté nañ quoi vraiment am na ñoo xam ne bu ñëwee sax dañ naan leen carrément affaire yi moom léegi mënatut a kii waaw mais am na ñoo xam ne ñoo am na client xam ne mënu leen a ñàkk jël ñoo xamante ni depuis longtemps yi a ngi nekk ñooñu lu mu metti métti da nga leen di jël ñëpp dañ jot seen yëre incha allahu rabbi waaw am nañ ci yaakaar daal bu baax a baax waaw daaw gis nañ suñu boobu ren tamit am nañ ci yaakaar bu baax a baax te gis nañ fii ni mu demee te am nañ ci njortu ne bu baax daal euh, dana gën a neex daal incha allahu rabbi chaque jour dañuy yendu liggéey maanaam 5 la ñuy tëdd quatre heures de temps daal lañu deux heures noppaliku quoi waaw la noppaliku mais comme maanaam boo affaire yi moom boo ko jëlee doole il faut xam nga rek il faut nga profité lépp daal di jeex xam nga nga bañ a tardel kenn yëreem parce que tamit nit jox la yëreem pare nga tardel ko dafa métti te ci tour de famille boo xamante ni ñëpp encaissé seen yëre xam nga xale toujours xale nag laay wax xale yi moom mënul leen a ñàkk ñawal xam nga tamit man nga ñaw bañ a ñawal mag sax mu mag tardé mais xale moom moo gën a garaaw quoi di rey suñu pour xale yi mën a solo euh, mag ñi tardé. waaye it borom kër yi farata euh, sunna la de ndax xam naa ni tabaski boo xasee faat jeex na. te boo te boo waaw te boo boo lebee xar deux cent mille ak cinq cent mille ci yem boo ko rendee moom jeex na naka nga am jàmm. mais naka nga mën a dem jëndee greffage greffage dañ koy wax cheveux cheveux naturel waaw trois cent ci tabaski kooku moom suñu la farata. ku mën a jënd cheveux naturel waaw te da nga fay toog jënd ko ba pare yow heure bi ngeen tëyeer dañuy xat jënd naa jasineer xotti naa xale yi xotti lépp ba pare nag maam toog ñu dem ba war a jënd xar na xale daa seer te yow xar mi moom moom moom waaw moo sax jaamu yàlla foofa nga dem jënd ji jasineer ba pare jënd si cheveux ndax lan tëyeer dafay xat léegi daal borom xar yi nag léegi moom boo pare yow moom nga war a ñëw mu wàññi xar yi si yoon si wàññiwut nga ne xar dafa seer xanaa kon jasineer seerut ak ak ak greffas te yooyu du dara xam nga daal na ko waaye mane ñu defee ko nii yàlla na ñëpp am xar ku amul xarit du gàccee dañuy muñ la yonent bi rayoon ngir nun